ak yow euh, déglu ji suñu rubrique bi. buñ paree rek dellu si jeex na. mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ ma ko jàng du wees ci wàllu actualité ñeel njàng meek njàngale mi ni ñu ko xamlee woon kuréelu jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci G20 dal dinañuy amal seen débrayage ci talaata ji docteur si nag ab assemblée générale ngir sàkku ci gouvernement bi mu respecté accord yi mu xaatimoon ak ñoom ci atum 2014 ak léegi Dame Mbodj mooy porte parole bu G20. tey ñu dajale jàngalekat yi à travers réew mi bu ko defee nag ñu waxtaan ak ñoom bu ko defee ñu xool yéen jéego la ñuy def pour jàmmarloo bi nan lay tëdd ci semaine yi nu jëm ak weer yi nu jëm ak nguurug Sénégal. Don't Downey Land. tey nag ñu def ab découverte ci benn projet d' éducation numérique nga xam ne association bi di Afrique Déclic ñoom ñoo ko taxawal li leen tax a jóg nag mooy former sunu ndaw yi li ko dalee juróom-ñetti at jàpp fukki at ak juróom ngir ñu mën a méngoo ak jamono ci noonu demoon nañ fekkee lancement bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci Yoff tànn ay ndaw yoo xam ne dañ leen di former jàngal leen ci wàllu robotique ak yu ni mel lépp jëm ci informatique reportage Fatou Sow. dañoo toll ci jamono boo xam ni lii di xarala yu yees yi mënul ñàkk te ni ñuy former ndaw ñi ci

vraiment ay liggéey yoo xam ne ñu xarañ la ci domaine informatique. ci projet bi tam nañ fa gën a yaatal accès wu ñeel wàllum programmation ak robotique Abdou Aziz Dia. xale yi seen njàng dafa war a lëkkaloo ak li nga xam ne moo xew ci jamono ndax xale yi bi ñu ñëwee ci suba ñu ngi tàmbalee ak ñoom wax leen ni leen ndax xam ngeen oto yi nga xam ni dañuy demal seen bopp te kenn ne benn chauffeur nekkul ci biir jàngal leen li nga xam ni lan moo tax oto bi nga xam ni boo ci amul chauffeur su bëggee taxaw taxaw bëggee dox dox su bëggee tourner mu tourner lan moo koy def. xale ya ñuy tàggat sax tàmbali nañ def ay mbir yu mucc ayib ci wàll wi aadama Kundul kenn ci ndaw ñañ fa fekk. dañ ñoo jàngal nan ñuy def pour dawal benn oto dañ jox. benn fichier ñu def construction bi léegi suñ ko defee ñu ne ñu bës ko suñ ko bësee affaire bi commencé di marché. bile association nag li ko tax a jóg mooy fexe ba former junni ndaw ci diiru ñetti at ngir ñu yam ndaw ñi nekk ci réew yu développé yi ndax ku miinul xarala yu yees yi tey mën nga am ay jafe-jafe ngir ànd ak jamono fileeki at. jaajëfal nañu ko moom faatu Sow ci reportage bi tey nag ci seen parti block note ñu def taxaw seetlu ci maître Valdiodio Ndiaye mi

atum 1962 ci jamono joju ki di Léopold Sédar Senghor mo nekkoon jitu réewu Sénégal ñu tuumal ko ñu dafa doon jëm ab coup d'état mom ak Mamadou Dia 26 août 1958 Mom mo defoon discours bu mag bobu nga xamni ni kenn ko ci taarixu réew mi ci kanamu général de Gaulle bobu fekk na ñu ngi wajal def référendum 28 septembre 1958 discours bu mag bobu mu fa yëkëti won bani nous disons indépendance unité africaine et confédération bokku kon ci ñi nga xam tax ba Sénégal mom maître Valdiodio Ndiaye mu ngi génn àdduna ba sub juróomi fan ci weeru mai atum 1984 fii ci Ndakaaru jàngi leen jàngi leen lii lañ leen indiloon tey ci seen rubrique moo nekkoon jig daje beneen àllarba bu soobee yàlla. waaw waaw merci beaucoup Koumba Ba euh, dig daje beneen àllarba ci mon école euh, di ko ci euh, gërëm bu baax a baax xanaa ñu tas tuuti rek. waaw ñu tas tuuti rek ni ñu ko waxee woon projet bu xam ne on a trouvé que c' était intéressant mhm. moom moo tax ñu daal di dem kals bi ñu waxee rek li nga xam ne mooy lancement bi. Mhm. et bi ñu demee aussi dañ fekk ni lu concret ñoom la ñuy jàngal xale yi. Mhm. ndax ci mbirum ordinateur yu ni mel. Mhm. day mel ni yëfu mag la. waaw duñ ci boole xale duñ ci boole xale yu trop te euh, da ngay seet ça demande une moom mi mhm. nag waa ji ab mhm. ab nee na moom euh, ci secteur banque la nekk mu ne mais day seetlu bu voyager comme xale tubaab bi nu ñu miinee li nga xam ne mooy l'outil informatique ñun suñu doom yi meluñu noonu te loolu

bari mhm. mais comme day gis ay robot ci dessin animé yu muy xool mhm. léegi boo ko ay matériel né ko robot bi li motax tax muy daw nga jox ko diko essayer lo ba mom si jëmm bopam bu talé affaire bi dem mhm. da ngay gis après xalé motivation bi ñuy am pour continuer aussi c'est important exactement muy ah Afrique Déclic ñoom nag projet bi ci diru ñetti at lañ koy def pour 1000 jeunes mais dañuy commencer ndo ak ak même le même jeunes yi ànd ak ñoom pour 3 ans yi pour que ñu nek ay nit yu opérationnel donc tambali nañu tambali nañu déjà lancement bi lañ doon def mo taxone ñu demoon fa léegi nag bu weesoo loolu ma wax tuuti rek ci ki nga xamante ni moom lañ indi tey ci parti bloc note yaakaar naa moom tamit mm. ci histoire réew mi comme on dit kenn dootu ko fàtte ba Jojo Ndiaye ba Youssou Ndour jagle woon na ko ab wëy di wax ci discours bu mu yëkkati woon ba général de la ñëwee Sénégal loolu sax moo déggoo mu ne ko ba tey. waaw ndax looloo sabab la émission nga animé dé <laughs> non Kalz wax ci genre nit yoy da fay neex. Uh-huh. parce que da ngay gis ni dañuy am ay carrière yu yu riche ci walu ci walu politique waye ci walu njàng. parce que dañ la naan am nañ ay mention honorable des fois sax ay étonnement du jury comme on dit souvent pour taquiner. Hmm. mais da ngay gis ni sen walu jang dañ cey joxone dañ ko joxone gëdd bu mat seuk hmm. ba tax ñu doon ay ay référence ci walu wowo yakarna quand même suñu politiciens yi war nañ di inspirer. inspiré ci ñoom mhm. parce que doon nañ def euh, politique mais politique bu ànd ak éthique mhm. et yaakaar naa c'est très important mhm. mu amoon tamit ay casquettes yu bëri yu mu soloon ci wàllu euh, ay ay poste ministre yu mu amoon nekkoon tamit euh, maire bu ville de Kaolack bi nga xam ne fa la bàyyeekoo nekkoon daal koo xam ne fësoon na loolu doon àndandoo ak ñu mel ni Birago Diop ak Cheikh Anta Diop kàngam yooyu nga xam ne ñoom it kenn dootu leen fàtte ba ci wàllu politique tamit jot na dugg kaso comme on def douze ans foofu ndax rek benn coup d'état buñ ko tuumaaloon da doon jéem mom ak Mamadou Dia muy histoire bo xamni dal mm-hmm. on a jugé que c'était c'était tellement riche mm-hmm. motax ñu indi woon ko tey pour exactement ah ouais dañ ko wadi xam parce que c'est important de euh, fàttali len toute histoire mm-hmm. euh, ndax suñu mag ñoo ñu nga xamni ñoo fi nekkoon ñom tamit liggéey nañ ko fi voilà donc c'est c'est très important exactement kon moo taxoon tey ñu indil leen ko rek mhm. moom avocat bu mag boobu comme ni ñu ko waxee dafa judd rek nekk citoyen français ndax boobu loi des quatre communes moom moo moom moo amoon mhm. boo juddoo ci ñeenti communes yooyu rek da nga daal di nekk eh, directement li nga xam ne mooy citoyen français am fulla am fayda ba pare jàngee bitim réew ñëw dem jaaxal nasaraan si ñëwaat mhm. terewul nga dellu si ci sa réew di si def di fi def liggéey bu am solo kon chapeau kon moo taxoon tey ji ñu dellu si waat ci moom tuuti rek ci bloc note waaw mën nañ ko noter ci bloc note yi doote leen euh, euh, sujet bi ñuy jéxalé ak yow da nga ko junj sànq euh, dina am suite nga foog grève yi ak débrayage yooyu nga xamné tambalina dina am suite parce que ñom déjà démb après débrayage bi juste ñom dañoo def sen assemblée générale. Mhm. pour teurel plan d'action. Mhm. plan d'action nak boko boko boo step by step la ñuy dem. manam étape par étape dañu né tay comme def nañ débrayage. Mhm. on a marqué le coup maintenant dañuy xol yeen djégo la ñuy defaat. ndax boo déggee dàmbooj dafa né jamarlo ak nguur gi. ce qui veut dire que ñom fi né ci tank defante la ñu nekk. toujours est-il que comme ci waxtaan dañuy la ñuy mujj pourquoi ñu njëkkee si mm. mais daal annoncé woon na la couleur kon bettul woon kenn démb mm. mais am na yeneen yu ñu nas foofu nag yoo xam ne ñoom génnewuñu ko mm. ñu ngi xaar ba xam suite bi lan lay doon dina am suite moom Kals ndax suite bu neex lay doon wala wala leneen lay doon ñu ngi ñaan mu nekk <laughs> suite bu neex mais mais mais quand même nag dafa teel trop daal anam yi doog ibbi nii débrayage yi commencé

bi dafa yàgg. <laughs> Ah. na rek. classe mercredi prochain. mercredi waaw incha et puis euh, euh, di leen jox rendez-vous mun ngeen woote am na numéro bu euh, tout à l'heure xam naa ko jox balaa mm. may jeexal bu fekkee da di woote. Mm. ci rubrique bi ñu tuddee mon école bëgg ñu jàllale leen ci man ñaar ko des tout petits ak dem école Malick si def fa portrait. inshallah ah. on va le faire parce que commencé nañ série de sorties yi. Mhm. bii ben la ci won bo xamné waccion nañ dem Yoff. Mhm. am na tamit euh, ñu ngi ñu ngi waajal dem fi nga xamné mom moy mooy euh, université. ñu ngi waaj daal ay mbir Kanzu comme ni nga ko merci beaucoup Coumba rendez-vous tout à l'heure à midi ci li nga xam ne moom midi culture